fidèles internautes Dakar Midi ñu ngi amaat métti ak kontante comme niñ koy faral di ko defee saa su dara bu xew dañuy bëgg wàcc sur le terrain wax ak askanu Sénégal wax ak jeunes Sénégal yi euh, surtout tey nag ñu fas yéene wax ci cadre politique euh, politique na boo ko déggee Sénégal surtout politique bi dafa bëri violence violence bu bëri na si lool lool lool ñu fas yéene jeunes yi ñu wàññi violence bi ku nekk nag dinañ dinañ la topp nga wax ci sa xalaat euh, ni nga gisee politique bi ak violence bi nga xamante ne xale yaa ngi koy def euh, lan lan lañ mën a wax wala lan lañ mën a def ba violence bi wàññeeku ci le 23 bi nga xamante ne mooy jour élection yi ñi nga xamante ne si lañ jëm te nag moo war a ànd ak sama caméraman bu ñaawul bi Abou Sefa ñu doxantu ci sa xalaat noonu lañ koy noppee abu boo paree ma ne la nañ dem ànd ak gars yi. maaleykum salaam wa rahmatulah. tur beeg sant bi. Yeah, Zenda from the ghetto, let this Korean. Yeah, artist hip Euh, sëñ bi tey ñu ñëw fekk la fii ci sa place tey fas yi bëgg a waxtaan ak yow si euh, violation bi nga xamante ne am na euh, jamono ji léegi si cadre politique bi ñu gis jeunes yu bëri dañ leen di fay xaalis wala ñu leen jox 5000 francs ak tiset pour ñuy def violence en tant que jeune yow lan ngay conseil jeunes yow wala lan nga leen di. violation moom bu ñu ko bëggee xeex dañ koy déparé ci làmb gi parce que Sénégal dafa bëri violation te xam nga côté boo dem am na violation loolu suñu culture la. parce que duñ waxante dëgg xam nga ku ci nekk lu la neex ngay défendre te réew bu ñu ko bëggee defar foo ñu yar askan wi. yeeg politique moom jarul xuloo jarul xeex yeeg ki falu dafa fen ba falu kii falu nii tamit fen rek lay def ki falogul moo dàq fen kii falu kon nit ñoo war a nekk seen bopp problème Sénégal de politiciens ñoom ñoo koy réglé ñun ñoo koy réglé moo tax ñun foo ñu waajal suñu bopp te xam ne ñun ñoo war a nekk ay nit di supporter lu ñu amul njëriñ koo xam ne bu faloo yow dootoo ko gis waru la jaral ngay dem di xeex sa sa askan naam seen nu laa gisee. ñi nga xamante ne dañ leen di jox ay t-shirt wala xaalis ñuy ànd ak politiciens yi di xeex ngir euh, ñoo xamante ne jaruñu ko daal en fait te li gënoon rafet mooy nga dem jur ba jot nga dem voté tranquille euh, ñu bisuwaat sa kër est ce que loolu tamit jeunes yi nekkul si jeunes yi ñoo koy def aussi parce que politiciens yi tamit duñu seen doom yi doomu jàmbur lañu ko. askan ñoo war a parce que mbëri ñuy supporté. di jënd seen sa mbër yooyu ñoom ñoo génnaat di dóoraat askan wi mbër yi nga gis ni bu ñuy dóor amul fan sa club amul ennemi nit ñi ñoo war a conscient benn 2000 francs bi ñu lay fay warul tax ngay lor sa askan kon askan wi ñoo war askan wi moo feebar Sénégal dañ ko war a defaraat defar askan wi yëpp te xam ne dañoo feebar man loolu laa gis quoi nit da nga war a uti liggéey sax ci sa métier moo gën ñu lay fay pour ngay lor ay nit loolu ko koy def ku nekk yow mala nga parce que mala mooy dóor moromu nitam ndax ay intérêt noonu laa ko gisee. Euh, ñu ngi lay jaajëfal euh, di la remercier. yow di la wax ne Sénégal nag ñun ñoo ko war a defar ñun ñoo war a conscient te ñu bàyyi politiciens yi ñuy xas politiciens yi ñoo leen gën a yées yàlla moo ne askan wi nu mel njiit bu mel laa leen di jox zone de Indahod boobu daa euh, bi noo def. sant yàlla wér. Mamadou Diouf. ah. sëñ bi noo def. sant yàlla bu baax. tur beeg sant bi. juuf du tey ñu fekk la fii euh, fas yéene waxtaan ak yow si affaire violence bi nga xamante ne moo xew si dëkk bi surtout lu jëm si affaire politicien yi politique bi ñu gis ne nit ñaa ngi def violence surtout ak te politique bi euh, est-ce que tamit amul nekkul ñu dem vote ñu war a dem vote si jàmm ak salaam te bàyyi violence waaw loolu moom dëgg la loolu moom dëgg la parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk. réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk violence bi amul benn sens kenn ku ne yaay sa da ngay xool ki neex ki doy nga dem nga votel ko voté ci jàmm yeewu sangu ba set toilettu sol lu rafet dem voté wu ci jàmm ki nga choisir bu ko votel mu doon sa meeru gox nga choisir ko votel ko après que le meilleur gagne man daal loolu laa gis zéro violence parce que ñun ñëpp ñoo bokk ndey dañ ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar mais loolu dañ ko war a te loolu dafa desee nekk ba léegi parce que ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk bàyyi ñoo bokk tamit li ñuy séntu buñ sañoon réew mi day gën a dem kanam loolu kese la boo ci saanentee xeer gaañ ci kenn tamit amul sa frère wala sa sa nga gaañ amul benn sens daal man man daal loolu laa ki ma war a votel man su jotee ma dem votel ko keneen ku ma war a votel su jotee ñu votel ko ku teg tamit toog xam ne ay nit ñoo la fal ay nit tamit ñoo la fi jëlee loolu kese la jarul benn violence man daal ci lu ma gis violence jaru ko liggéey wàcc ki nga war a votel nga votel ko toog vote jot toog ak sa famille dem voté wu ñëw man daal loolu laa gis. man daal gis ne léegi xale yu dañ leen di jox xaalis wala ay jeunes yu dañ leen di jox xaalis pour ñu def violence que loolu moom kuñ ci dox ak luñ la mën a jox tamit guddeeg mi ngi mel ci suba teel ak guddi rek yàggul luñ la si mën a jox tamit boo ci defee violence gaañ ci doomu aar gaañ ci muy mag muy ndaw. erreur ngay def rek parce que bu la si yoon jàppee tamit day def liggéeyam amul benn sens te ki ki ngay fal moom yëgul tinul amaana sax moom mun na bañ a sa yëg loolu amaana sax mun na bañ a yëg loolu mais xam rek mbooloo moo gis rek ñëpp mun ñoo mais man daal lu ma gëm mooy ki nga xam ne moom nga jël intention nga votel ko bu heure bi jotee nga dem votel ko yor sa carte sol rafet dem zéro violence man daal loolu laa gis ku def naka su dul noonu la bu la ci jàppee ëllëg si biir loo ci teg rek nga xam ne yaa ko teg sa bopp waaw man daal loolu laa gis. waaw ok jërëjëf waay. si. Euh, tur sant bi. Euh, la Samb. Samb Pape Samb ñu fekk la fii waxtaan ak yow euh, ci violence bi nga xamante ne am na fan yi si dëkk bi ak politique bi yow lan moo ci sa xalaat en tant que citoyen. waaw non man moom sama xalaat bariwul ci maanaam comme ci liñ jëm moom ñëpp ñoo bokk liñ bëgg nañ defar rek àdduna amul solo. ñu ko bokk liñ euh, na mag ñi yërëm ndaw ñi loolu solo ñun na man moom gis nga ma damay xëy wut lu ma am euh, néew ma ci caaxaan néew ma ci ñàkk faat néew ma ci détaillé Cees laay xëyee ñëw Ndakaar ut lu ma am gontu ñibbi gis nga ma chauffeur laa xam nga maa ngi sant yàlla wéeru ma ci état tamit su ma état dimbale tamit ma jël mais maa ngi cooki cookal di kocc koccal xam nga àdduna solo ndaw yi nag li ma leen digal ndaw yi nañ dem liggéey waaw bañ a basé ci yooyu bañ na ci yooyu ñàkk fayda yi waaw man boog sama bopp boog sama jum bopp moom loolu wax ku am ci looy def ku am ci looy na ci lu baax naja ku am looy liggéey liggéey ko man chauffeur la te damaa fier ci li may liggéey heure bu ma xëyee maa ngi daan sama doole di wut sama ut lu ma yóbbu sama njaboot waaw na ñëpp góorgóorlu àdduna amul solo waaw. ah war laa si moom. léegi yow buñ la joxoon tey deux mille wala cinq mille pour nga dem voté wala pour nga dem kiiw kër jàngu loolu noonu tamit lan nga si non loolu euh, duma ko def du ma ne ci détail yooyu waaw sama carte nag maa ko moom booru vote jotee dinaa jug dem voté ji waaw citoyen la am naa carte d'identité waaw maa ngi samay pièces tout. bu war fa jotee dinaa voté ji. doo loolu taxuma ma ngir xaalis moom waaw voté ma ngir xaalis même bi gars yi ne ci dëgg bi nang nangi nii sax maa ngi yor sama moto di waaw daw ma ci ay xaalis dundu ma ci loolu daal waaw am loo du ma ci dund sama carte maa ko moom citoyen la dinaa jël sama carte dem voté ji ñëw duggaat sama kër toog waaw. ñu ngi lay jaajëfal. waaw soxna a maa ngi lay li ngeen def rafet na trop waaw na seen yëpp xool ci man rek man moom ku ma gis xam ne man liggéeykat laa xarkatu mat laa liggéey jaamu yàlla rek moo ma gën waaw loolu rek amul benn problème jërëjëf sëñ yooyu ñu ngi lay kontaan. merci beaucoup sëñ bi noo waaw soxna si maa ngi lay fay. tur beeg sant. maa ngi tudd Ameth Ndiaye. te tey ñu fekk la fii tey fas yéene waxtaan ak yow si affaire violence bi ñu gis ne dañuy dem ci élection yi le 23 en tant que jeune lan ngay conseil ñu wàññi violence bi jeune. violence bi moom mënut a ñàkk moom instant yi nii ndax tamit dëkk bi toll na foo xamante ni dafa dëgër xam nga mënoo toog tamit bëgg a xëy bëgg a ndékki xam nga gis ku jógee fee bëgg la jox 5000 journée bi wala 3000. waaw sañ ta bañ la faaw nga dem ànd ak moom mënoo si dara mais violence moom du yoon. waaw ndax tamit nit munoo nekk tamit di xeexal koo xamante ni bu faloo da lay fàtte loolu moom du yoon waaw. léegi te yow daal noonu nga ko gisee nit yow ñëw jox la 5000 francs ne la demal nga xeexal ma di yoon nga def tey en tant yéen ñëpp ngeen nekk ay. waaw mais xam nga maanaam àdduna bi moo toll foofu jamono jii nii. bu ñu la joxee 5000 francs ne la demal xeexi yow tamit comme dañ laa nax yow da nga leen di jéem a yow mën ngaa dem te doo xeex nga dem xam nga ànd ak ñoom ñu def seen meeting mooy loolu nga xam fi nga yem rek waaw ndax loolu moom fii lañ ko fekk yëkkati xaalis jox ko nit moom loolu moom jikko politicien la dañ ñoom yaa ma gën a xam si xaalis boobu si loolu lay jëndee yow nag yaa ànd ak sa xel xam li la fa yóbbu nga bañ a xeex bañ ndax tamit boo si gaañoo tamit yaay perte gis nañ fan yii yëpp gaa yaa ngi rayante surtout nervi yeeg yooyu noonu mbëri xam nga di dugg si yenn business yoo xamante ni di yoon ay convois di daje ñuy xeex ak yooyu war naa mën a ñaax ndax ñun ñëpp suñu biir la ñëpp ay sénégalais lañ war nañ ko war a mën a defar ba mu gën a rafet waaw loolu moom du yoon moom violence gi moom war naa war a mën a ñaax mais tamit àdduna bi moo toll foofu noonu te jamono tamit neexul jeunes yu bëri liggéeyuñ waaw te yow ñi ngay àndal ñoom bu ñu demee ba fal nii dañ lay fàtte. yow balaa ngaa voté tamit dañ la war a fay. balaa ngaa voté moom du yoon moom ñu lay fay moom ndax nit ku nekk yow yaa war xool li la doy waroo xool xaalis jiital ko ba tax yow xaalis boobu noonu tax nga voté diw. loolu moom du yoon ndax citoyen moom yow yaa war xool ki ngay fal bul xool xaalis ba fal koo xam ne ëllëg da lay lor. waaw loolu moom du yoon moom fay moom moom moom moom waru cee war na cee mën a ñàkk daal sama gis-gis mais xam nga àdduna bi tamit foofu la toll lépp loo lijjën tamit boo génnewul xaalis du mën a dem faaw nga génn xaalis mu doog a mën a nekk moo waral tamit ñoom mënuñ def leneen lu dul fay nit ñi pour ñu voté leen waaw loolu la. ñu lay jaajëfal remercier. waaw man tey di jaajëfal di leen remercier bu baax. te ngeen wax Macky Sall mu dimbale càq càq maa nañ lool. asalaamaaleykum sëñ bi noo def. maaleykum salaam soxna si. sant bi. bi Antou Ndiaye la. Anta Ndiaye waaw tey ñu fekk la fii sa bërëbu liggéeykaay bëgg a waxtaan ak yow si lu jëm ci affaire violence bi nga xamante ne jeunes yaa ngi koy def si par rapport ak politique bi en tant que jeune yow lan ngay conseil wala lan ngay wax jeunes yi nga xamante ne ñu ngi def violence boobu. waa loolu ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur xam nga di nuyu monde entier di naan loolu moom képp koo koy def xam tegul si yoon maanaam boo nekkee jeune nekk si gox da war a maam da war a nekk maam royukaay quoi. mais woo mais waroon nangu ñu lay fay xaalis nga def loolu de yow da koo def ëllëg mu nga dóor sa yaay wala mu nga dóor sa yaayu xarit wala mu nga dóor sa magu xam nga rek affaire moom dëkk bi ñoom ñoo bokk nay rafet rek nay rafet quoi ay nerf yëpp jaru ko waaw su ma daal gars yi gën a seen xel xam nga def li war a def moo lu ñuy def nii xam nga génne ay jaasi di xeex si mbedd yi di reyante jaru ko waaw ndax bu ndax ñi war a falo bu ñu rek bu jeexee jeex na ñoom doo leen di feneen kon daa war a rafet quoi gars yi nekk si seen jàmm ak salaam bàyyi la ñuy def di xeex si mbedd yi di xañ sa ndey xeer xam nga tamit ma xam gars yi ko waaw abdullahi nekkul du rafet su ma seyoon daal gars yi bàyyi lépp xam nga dund si jàmm ji xam nga léegi naa gars yi billahi gars yi bàyyi yenn daal waaw. ñi nga xamante ne dañ leen di fay xaalis jox leen 5000 francs ak t-shirt pour ñu dem euh, yàq kër jàmbur wala dem attaqué ay mil ay kii que loolu tamit loolu lan nga si wax. loolu moom defal déglu ko si benn jeune tamit. nekkul lu jekk sax xam nga nit liggéey alalam xamoo nu mu ko amee xam nga benn jour rek ñu fay benn cinq mille francs nga yàq njëgu un million wala ñàkk yëgu deux millions loolu tamit jeunes yi war ko xool tamit ko waaw dëgg fa yàlla lu jekk waaw loolu képp bu ko defee damay jàpp ni yow da ngaa ñaan ko war da ngaa wala amoo conscience tranquille wala xam nga amoo ñu lay yedd wala amoo ñu wax wala amoo gàll bu rafet wala amoo mënoo liggéey lu am loolu noonu damay damay jàpp loolu noonu mais boo boo jàppee ne liggéeykat nga rek wara waroo toog di yàq ay nit sax mais bu ñu la fay ay million jaru ko waaw loolu jaru ko quoi jaru ko man dama gis man loolu jaru ko defal jaru ko nekkul du ko jar sax ñu la fay ay benn cinq mille dix mille nga dugg benn kër yàq fa ay ordinateur yàq fa ay télé yàq fa ay rajo yàq fa ay karkat yu mool dem ñibbi toog ne maa ko yàq loolu dafa diggante ma loolu nekkul lu nekkul lu doy waar a ngoog daal wax dëgg fa yàlla xaw soxor la xaw ma xiñaan la xaw ma si comportement bi la xaw ma ñun ñoo nu mu demee noonu laa xamul daal mais daal képp def daal yaakaar naa ni war nga kaa mën a bàyyi bu baax a baax a baax da jekkul rafetul daal. di nga voté. ma dinaa voté. mbaa jënduñu la. ku may jënd man doomu dëkk bi laa man doomu Dalifort laa kenn ma jënd. man boobu léegi sax ànduma kenn mais ki mu a voté xam naa ko sama biir xol dinaa ko voté si ci njëkk si teraanga waaw ba kenn ma gis kenn ma gis loo xam ne day yàq kenn ma gis loo xam ne su li defar laay jour si lay defar laay dox ndax boo xoolee sànq door naa benn vidéo sama portable sax ba yónnee xam nga rek wax gaa yëpp pour mu pour mu rafet quoi pour mu naayees. yaa nag dëkk bi ñoo ko bokk Dalifort ñoo wax bokk feneen feneen ñoo ko Sénégal ñoo ko bokk ñu ngi ñaan yàlla xam nga rek jàmm sax si am ci la bañ see ñàkk sa bakkan daal. sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal. di la remercier yéen ñii xam nga vidéo territoire lu am solo trop la. lii da siy baax xam nga ñu xamul ñu xamal leen amaana ñu xamuñu sax mais suñu xam-xam la ñuy wax rek mais amaana am na ñu gën a xam fuuf te nangu duñ nangoo wax waaye lii nag di si baax ñuy wax xam nga di jëlee si jeunesse waat xam ne politique day jeex adduna lépp ay jeex kon na lépp rafet bu lépp rek xam nga ku nekk di am li nga war a am ko wax maa ngi jaajëfal nag li ngeen def nii seen liggéey naaj trop yéen ngi naan naan bonne continuation rek amul découragé te yoonu ndaw du gaaw waaw nit ki lépp lu muy dugg da koy gëm am gëm-gëmam xam ne lii moom mooy may waaw ngëm-ngëm looloo looloo mais du ma dugg si lii par ci xel ñaar non maa ngi dugg si lii est-ce que ma may maa ngi wax kii est-ce que dina ma wuyu non non nit lépp lépp aduna la ñun ñun ñu ngi si làmb ji ñu ngi fii si si bërëbu liggéeykaay ñu ngi feneen ak feneen mais kenn ñu gis loo xam ne day yàq wala ñuy ŋàññi wala def loo xam ne après dañu si nit ñi dañu siy bàyyi dañu siy mere wala dañu siy bàyyi xel waaw ñaa ñaar ñëpp daal képp ku lu waay def na xool mu bu baax a baax gars yi nañ yéenante jàmm yéenante jàmm boobu solo fuuf fuuf waaw comme la ñuy def nii waaw barke sëñ Baba Mbacke ñu ngi bëggee ñëpp nag yàlla fi jàmm yàgg. papa nuyu naa. maa ngi lay fay. tur beeg sant. Abdou Khadre laa tudd ñu ngi lay sant. Euh, papa tey ñu fas yéene waxtaan ak yow si cadre violence bi ak élection yi ñu jëm le 23 yow ban message ngay lancer jeunes yi pour ñu wàññi euh, violence bi en tant que papa. waaw xam nga Sénégal ñun ñoo ko bokk te mën nañ ne violence baaxul fenn. Euh, du du ci politique bi rek violence dafa late Sénégal fi mu ne ba ci xale yi ni ñuy àndee ci seen biir sax rafetul parce que du ñu baalante dara te pour man euh, nit ku bëgg dara du politiciens yi ñoo la koy may yow yaay dem wuti ko moo xam métier ngay jàng moo xam da ngay jàng am ay diplôme ñu orienté la fenn nga dem liggéey mais doo jël sa àdduna nga wéer ko ci nit waaw nit du xeexal nit nit du xeexal nit te yenn yi pour man jot la rek politiciens yi tamit dañu war a dimbali jeunesse bi ci benn côté parce que je vois que ni euh, ñàkk jot bokk na ci li am jot bokk na ci li li nga xam ni moom moo moom moom moo indi problème yi yëpp waaw lii nii yëpp ci ci ci am jot la bokk mais su fekkee da nga am jot euh, fi mu ne nii ci sama place liggéeyukaay ngeen ma fekk. kon awma temps wu di sotul benn tisetu politicien wala ma koy te teewul le jour yi su jotee mais dinaa remplir sama devoir citoyen dem vote yi loolu kese la mais violence bi ñaaw na trop ñaaw na trop parce que ku ci kuñ ci gaañul sa mbokk gaañ nañ ci sa xarit te Sénégal ñun ñëpp a bokk ñun ñëpp a bokk kon mën naa ñàkk politiciens yi waruñu mën a boole ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñoo bokk lépp loolu daal laa ci gis. bàtt lañ dese ak benn famille mais dafa ñaaw mooy li ma la wax dafa ñaaw ndaxte ñi koy créer ñëpp gis nga jàmm ci la lépp xaj jàmm ci la lépp xaj te ñun toll nañ foo xam ni du lii lañ soxla Sénégal ñun li ñu soxla mooy ay liggéeykat ay nit ñu gëm seen bopp nekk sur le terrain di liggéey loolu lañ soxla mais pas nekk fii di rayante ci ay détails rafetul dafa ñaaw trop trop trop trop trop Barthélemy Diaz Bakil Barthélemy Diazo Ablaye Diouf Saaro Aliou Sallo mais ñoom ñëpp ay sénégalais lañ Sénégal yàqu du seen arrangement doomu doomu yi ciy gaañu du seen arrangement ñoom ci seen bopp ñoom ñi nga xam ne ñooy xam nga bi li koy li koy li koy li koy indi à chaque fois mooy leader yi ci boppam ñoom ci seen bopp ñoom ñooy créer violence bi ci seen façon de parler parce que nit am na nooy waxee rek. Euh, yow yaa ñaax ñëpp ci ci ñu demee xadar kilifa bu jiitoo dafa am nu muy waxee ak ak ak ak ñi mu ñi mu jiital mais bu fekkee dangay wax di menacer sa moroomu leader dem moom ci ay menaces ni la topp ñëpp dañu war a dañuy jàpp ni loolu moo war a exister te affaire bi déroulé wul noonu nit mun nga campagne teg ko ci xam-xam ak xel gars yi la bëgg bu la bëggee votel la nga teg programme loolu rek la amul leneen. mais dóorante sànnante xeer tojante bopp gaañante ci mais dafa ñaaw. dañuy gis parfois lu bëri ñoom bu ñuy dem duñ jiital seen doom yi ay doomu jàmbur lañ jiital est-ce que il est si loolu. waaw xam nga euh, li tax du jiital seen doom doomu jàmbur lañuy jiital mooy gis nga parent dañ ci am part de responsabilité ñun dañu toll ci senegal boo xam ni euh, kilifa yi fi nekk euh, mënuñu yar mais xont lañ mën. xam naa su ma waxee loolu dina la jaaxal mënuñu yar yar ak xont bokkul. xont maanaam. voilà xont mooy nit waxtu lekk jot nga jox ko mu lekk jox ko mu naan après bàyyi ko mu dem kooku moo xar yi ñoo yam nit da koy éduquer d'abord doom da nga koy yar am ay valeur yoo def ci moom primo mu xam li mu bëgg ci àddunaam secondo bu xamee li mu bëgg mu xam fan la koy wutee bu xamee fi mu koy wutee mu xam lan moo koy may loolu après nit noonu ngay fonctionner mais parents dañ ci am part de responsabilité boo xamante ni bii nii dafa jéggi doyoo amu ci benn doomu aadama boo xamante ni bii nii fi mu ne nii say parents mën nañ la wax nga dégg liñ la wax non que parce que parce que li koy waral mooy xëy na moyens yi nekk fi ñun ñëpp dañu jiital alal ba jàpp nañ ni sa papa su amul xaalis sax waru mën a sant nga def waru mën a digal nga bàyyi sénégalais dañuy fonctionner noonu da nga ciy gis koo xam day am papaam nii la koy téye parce que papaam matul mënul mënul mënul ginnaawam loolu lépp ci ñàkk yar la parce que doom war nga ko mën a yar ci ne àdduna du du du du xaalis rek loolu rek moo créé violence bi da sol benn tisetu politicien dem ci mbedd mi ñu jiital doomu jàmbur yi tiset boo sol 2000 francs ñu dem di reyante ci mbedd mi. yow da ngay sol tisetu mil francs ñu jox la 2000 francs nga génn gaañu gaañu 100000 francs après ku lay faj say waajur ñooy génnaat fu na ñu fëgg fa fu ne ñu daw fa aki pour lan jeunes yi ñoo war a conscient loolu gis nga politi suñu politiciens yi dañu war a tiit rawatina ñu nekk parti au pouvoir xam nga lu tax ñu war a tiit mooy bu ñu créer meeting jour ouvrage foo sànni mbatu day tag mais da lay wan ni jeunes yi liggéeyuñu amuñu lu ñu def mais ku am loo def jour ouvrage boo wootee meeting doo gis nit. parce que am na leneen lu ko occupé lu mu war a dem defi moo lay wan ni Sénégal dara nekk fi booy liggéeyuñ dañ sonn mais nag dañu sonn warul mën a tax duñ demee suñu xel. man de benn politicien woo ma fële ne ma ŋàbb sama bagage yi dem jaay ko moom ëppal fu la loolu su ma dem ñibbi ci suma njabootam jeex na. jur bu nga dem voté. jur wa jotee ma dugg seet ki may votal ma votal jeex na parce que sama droit la. ma dem def ko ci jàmm retourné sama kër ñibbi xaar benn politicien bu jox ma benn 5000 francs ma sol tisetam pour lan pour lan te muy muy di wuti man may góor di wuti moom li muy wuti après njabootam la koy yóbbul pourquoi pas man waruma mën a dem wutali sama bopp te teewul ba élection ñëwee su fekkee doy na moom votel ko dafa jar xeex wala xuloo jaru jarul loolu rek la message bi am na solo papa ñu ngi lay jaajëfal di remercier. waaye maa leen di jaajëfal yéen tamit parce que lii ngeen di def nii rek ci liggéey la bokk lii dara gënu ko for ay jeunes ngeen nekk ay xale yor seen caméra dugg ci àll bi liggéey mais mais leen jotu dem di wër ay politiciens sol seen t-shirt di yuuxu mais jeex na lii rek message la li ngeen def nii ni nii nii nii message la boo xamante ni bii nii jeunes yëpp war mën a jàngeelu ne jigéen nga mais guerrière nga yaa ngi ñafe sa live sam waa ji tamit noonu di leen ñaanal rek ca kaw ca kanam fi ñuy dégg yeneen site yu mag yëpp ñu leen fay dégg yàlla mën na ko yàlla leen ko yàlla defal ok jaajëf comme ni ma leen ko waxee au début rek noonu lañ koy defee dugg nañ ci jeunes yi laaj nañ laajte nañ leen ku nekk wax ci sa xalaat gis nañ jeunes yi ku nekk wax na euh, ñu waxaat aussi ñu leen di jox dig daje le 23 incha allah en tout cas ñu ngi leen di ñaaxaat aussi violence baaxul dëkk bi warul am violence parce que euh, Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xal ñaar te violence bi tamit baaxul ci réew violence ku ko dégg xam ne baaxul ci réew day delloo réew ginnaaw donc nii lañ koy faral di ko defee saa su nekk koo gis rek muy naan nee naan violence bi baaxul baaxul baaxul ci violence bi la ñuy insister ba léegi parce que ndawu Sénégal yi violence bi rek lañ gëm te loolu xam nga ne loolu tamit baaxul donc nii lañ koy faral di ko defee saa su nekk on est pour vous. suivez-nous point dakarmidi.net ma ngi leen di jox dig daje le 23 incha allah euh, candidat bu yàlla dogal nga falu nag xamal ne nit ñi ñoo la fal nga liggéeyal pour nit ñi bu liggéeyal pour sa bopp pour sa famille da ngay xam ne nit ñi ñoo fal ku fal ku ku ñu folli na xamal ne nit ñi ñoo la faloon tamit euh, nga gëm yàlla nga xam ne nit ñi peut keneen lañ soxlawaat pour mu defaraat nga xam ne da ngay gëm yàlla nga soutenir pour nga soutenir sa beneen candidat félicité ko loolu daal lañ leen mënoon indi tey